wasalaatu wasalaam ala man laa nabiya baada mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu euh, noo ngi fii tey ci Mbusoobe di fàttali ku ku màgg ku tedd di maam borom saam ca ab sëtam di sëriñ Maam Mor Mbàkke Xamdi di ko fi amal ñu xam moom taxawaay bu mag bi nga xam ne ni am na ko ci yoon wi di ndaw loo xam ne ni yoon murid yëpp ñu ngi koy tiitaroo ko ndamoo kon bu taxawalee lu mel ne di sëtub maam borom saam wax dëgg yàlla fii ci Mbusoobe gi yaakaar naa ne kenn du ne lu tax kenn du ne xanaa dañ naan yeex na ko def fii sax lañuy wax ndax loolu bokk na ci di dundal gox mi ndax ku xam maam borom saam xam jaxasoo gi nga xam jaxase woon na ko ak suñu maam sëriñ Mbusoobe Buso kon jaadu na ay sëtam fii ci Mbusoobe ñu fàttaliku suñu maam ju tedd jooju nga xam ne nii barki démb dong ci conférence bi wax nañ melokaan ak jikko yu rafet yi nga xam ne ni moom la làmboo woon ci mooy jikkoy lislaam mooy jikkoy jaamu yàlla mooy jikkoy liggéey ca loolu mooy li nga xam ne ni moom la sëñ taxawal kon kooku képp koo xam ne sëtoo nga ci moom wax dëgg yàlla benn yoon rek nga mën a aw mooy yoonu sàkku xam-xam jub ak jubale ndax loolu rek lañ mën a séentu ci leneen loo def lu nekk ah, du lu xaar ci yow kay kuy sa maam ñu ne sëñ Tuubaa kuy sa maam ñu ne maam borom saam loolu lu tiital waaye aw sas la sas bi nag mooy jéem a tege ci yoon nga xam ne moom lañ tege woon suñu maamoon nag ku ko xam ku ne xam ne jàmbaar la waaju jàmbaar la ci yoon wi ndaw la waaye wax dëgg yàlla gis nañ taxawaay bu rafet bi nga xam ne nii mi ngi koy am ci sàkku xam ci tasaare xam-xam eh, muy ndooyukaay boo xam ne nii génération bi nga xam ne ñoom la dëppool ci at mën nañ ko cee war nañ ko cee mën a roy bu baax a baax ndax comme ni ma ko waxee léegi rek kuy sa ñu ne maam borom saam euh, lii sa tiitar lii sa ndam mooy maanaam jub jubal ak sàkku xam-xam ndax ñoom ñooy jiir la sañ mbàkk bu soo waxoon rek ne euh, ca banu bàlla ne wa in tarsudu yarsud fi amun bi rusdikum wa in taakusu yaakus ulufu durubin loolu mooy dëgg yéen ñi nga xam ne ni yéen a war a jiite su ngeen jubalee ñëpp jub waaye bu ngeen safaanoo rek ñëpp safaan da sañ Abdu Lahat doon wax naan ne néew ma du ma juum de waaye su ma juumee mbooloo mbëree juum kon ñoom foofu rek lañu ñu war teg seen tànk ñu ngi koy ñaanal bu baax yàlla gën a dëgëral taxawaayam ba li mu yéenee liggéeyal ci yoonu maam yi mu mu mu àggale ko ca bañ am benn ndox yooyu mooy kàddu seere yi nga xam ne moom lañ bëggoon a ubbee rek di am mbégte lool ci bés bii nga xam ne ni mi ngi koy amal fii ci mbusoo bi di ñaan yàlla ñu yàgg ko fee taxawal yàgg koo ñaanal ci lépp luy xéewal ci bés bi yàlla ci njaboot gi ak sëñ Tuubaa moom ñëpp xam nañ ne ku yëngatu ci ay mbiram yàlla jëmale sa mbir kanam kon nag day mel na ñun kàddu yi nga xam ne nii moom la ñuy yëkkati rek kàddu yi imaam ci moom lañ koy jéem a sof ndax li mu wax doy na sëkk matale na lu nekk nag li am solo rek mooy daanaka maam borom saam moom li ñu waroon a xam ne ci moom mel na ne yaatu na ba lu bëree bëri bëri xam nañ ko ci moom waaye li am solo mooy ñun ñi nga xam ne ni ñoo fi nekk nan la ñuy def ba jariñ ci moom loolu rekk moo am solo ndax di yàlla wax ne wa ma qadarullah xaq yi kon yàlla sax bala ngaa mën a jëriñu ci moom da ngay xam gëddaam mooy tax nga mën koo kennal place ba mu nekk nga euh, bàyyi ko fa euh, mu weete ko waaye maam borom saam mi tamit euh, li nga xam ne ni moom la seq ak Serigne Touba mooy ak mbokk goo xam ne ni yàllaa ko dogal seen diggante waaye loolu lépp doyen na cër. waaye mel ne sëñ Maam Borom Sam dafa am lu mu ñëw ngir jëmmal ko mooy wane ne sëriñ tubaa lii nga xam ne ni moom la yor dafay jaay loo ko jege jege jege da ngay jaayante ngir mën cee am kon loola tamit mel na ne Maam Borom Sam yàlla baaxee na ko ba nga xam ne nii xam gaaw naa xam loola li nga xam ne ni mooy ak mbokk la ci aju lépp ak daraja yam amoon yëpp mu boole lépp ñëw jébal ko Serigne Touba kon nag loolu dafay mel ne euh, point boobu rek doy na ngir waxtaane Maam Borom Sam ndax loolu dafay wane euh, nangu dagalo suñu borom waaye dafay wane xol bu baax ak bu sell ndax koo xam ne nii yéen bokk lépp te nga fekkati ko ci mag su fekkente ne bi da ngaa mën a walbatiku toppaat ci moom loola ak mbaax ak xol bu sell moom lay wane. kon nag euh, ñun ñi nga xam ne ñun na bàyyi gannaaw daal sëñ maam góor li am solo mooy rek nan la ñuy fexe ba jariñu ci moom rawatina ñun waa Mbàkke ndax waa Mbàkke dañoo am cër boo xam ne nii euh, buñ ko jàppee te fonk ko. lépp loo xam ne danañ ko danañ dañ ko waroon di jug di ko wuti moo leen di fekk si kon nag maam borom saam mii nañ ko bàyyiwaat xel màggal gi bu ñëwee képp ku nekk mbàkke rek da war a yëg ne yow ma da ko war a màggal bu ñëwee ci sa kër war nañ ko fa di ko war nañ ko fa yëg dara jërut màggal gi ñëw ba jàll te yëguñ ci sa ci sa ci sa jëmm ci sa xol ci say jëf loo xam ne day wane nangul gi nga xam ne ni moom nga nangul maam borom saam ndax ñun waa mbàkke day suñu àndoonoon ñun ñëpp nangul ko cër bi nga xam ne ni moom la ko sëñ Tuubaa jox ñun ñëpp xaj nañ ci biir rawatina nañ ñun waa Mbusoobe ñi nga xam ne ni xam nañ diggante sëriñ Mbusoobe ak maam borom saam kon ginnaaw sëñ Tuubaa sax da daan defar nit te xam nañ ne sëñ Tuubaa ku mu ci yow say mbir jag na waaye mu andiwaat ko fii Mbàkke ngir maam borom saam mi fi nekk ak barke bi nekk ci moom ngir mu àggale fi ab liggéeyam bu ko santee sëñ Tuubaa noppi na ci moom kon ñeneen ñu nga xam ne ni nag dañu yàlla dañoo baaxee ñu gënee àdduna ci dëkk bi di xëy tànk yi nga xam ne nii moom la maam borom saam doon teg ci tànkam yu sell yooyu ci dëkk bi mu wóoruñu ne ñun saa yu ñu xëyee danañ jaar foo xam ne ni maam borom saam jaar na fi kon pësteef bi rek moom moom bu fekkente ne bi mat na lépp luñ bëgg danañ ko am ndax la xaadimu rasul waxoon ne maanaam moom do doon doon na ko doy sëkk rek mu ñëw àdduna ñu ne ko asamaan sii rek moo daan toon maanaam moo daan tiim yonent bi alayhi salaam nee na pësteefam dana ko may mu am li nga xam ne moom la bëgg ci moom kon nag ñun ñi nga xam ne ñun la baaxee ba nga xam ne bu ñu xëyee suñ ndëgg yi di di jaar ci ndëgg yoo xam ne nii maam borom saam jaaroon na fa kon loola nag waa Mbàkke war nañoo fobuwaat war na bàyyiwaat xel xam ne pësteef mooy maye nag mbir lu mu la jege-jege te amoo pësteef doo ci jëriñ kon yàlla nañu yàlla maye pësteef boo xam ne nii danañ ci mën a jëriñ ci maam borom saam jërëjëf maam góor